man la maam jaara ci centre bi laa nekk centre action sociale bi laa nekk def naa fi trois ans dëgg fa yàlla mësuma dem ci benn atelier fii laa jàngee ñaw lépp lu ma am walla lépp lu ma xam fii laa ko xamee fii laa ko mënee maa ngi dagg normal di ñaw normal lépp lu ma bëgg am rek maa ngi ko fii am dëgg fa yàlla maa ngi sant madame Diop di sant ñu ñuy jàppale ñëpp wax dëgg fa yàlla kontaan naa. que journée mondiale de la femme lañ wax te gëm naa ne góor baax na jigéen baax na te gëm sa bopp la rek parce que lépp loo yaakaar si góor moom day fekk yow ku jigéen ki war nga koo mën a defal sa bopp te ñun gëm-gëm boobu lañ am bëgguñu ëllëg ñuy wéeru si kenn bëgguñu aussi ñuy dépendre ci góor. bëgg nañ lépp loo xam ne ñoo ko am ñu amal ko suñu bopp ba ëllëg fu ñu dem sëyi fa aussi ñu mën a concentré wu ci li nga xam ne moom la ñu dem jóob jàngal waa centre bi jàngal ñu ko ñeneen ak ñeneen jàppale ñu ko parce que journée mondiale de la femme wax te tey jii fu ñu taxaw tagg jigéen ñi ñun ñëpp lañ war a taggandoo amul mag amul ndaw te gëm sa bopp la rek boo gëmee sa bopp moom léppay baax incha allah. vraiment action sociale bi loolu moom il faut ma souligner waale ko sax ndax vraiment dem Diop du tay ci di jàppale jigéen ñi. di tayul du jàppale ci ñi nga xam ne bii ay couches invulnérables yi ñëpp dañ leen di bàyyi waale xel dem Diop moom gàccee ngaalaama mi ngi jàpp bu baax a baax ci jigéen ñi moom journée de la femme bi moom moom jour chaque jour la koy def waaw chaque jour moom mi ngi ci développement jigéen ñi ak lu ji lu jëmale jigéen ñi kanam lool nag noonu mu ko waree noonu la ñu waree ñun ñëpp parce que journée de la femme la wax kon tey jigéen ñi ñoom ñoo moom ndam li ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal kenn ku ne sa foyer yàlla may la ci jàmm salaam. xanaa kañ lu may dolliwaat waxaat mooy machine yi bu ñu amoon bu ñu si mënoon jàppale ñu mën a yokkal machine yi ba pare machine yi nga xamante ne nii dafa am ay problème bu dee dinañu ko mën a réparer ñu ñu si mën a dimbalee rek. marché bi nag mi ngi accès wu ci couture dañuy def couture dañuy def broderie à la main xam ne xale yi nga fi gis nii yëpp kenn ku ci ne mën ngaa dagal sa bopp ñawal sa bopp. broderie à la main aussi dañ koy def kee moo leen koy defal mooy moom mënut a wax nag mais xam naa ne il faut mu jéema a toog jéem a kii parce que bi fi waa 3FPT ñëwee léegi dékk nañ ko seen micro parce que dañoo soxla woon wax yu mel noonu mel ni comme que handicapé la parce que handicapé physique yi handicapé moteur ak handicapé visuel yi yëpp dañ ñam dañ leen di soxla waale de tell sorte que man moom bu too bu taxawee dina expliquer lim leen di jàngalee tra broderie à la bi mais bu fekkee ne couture bi la moom man maa leen ciy former man ak sama collègue yooyu ma la wax léegi waaw matoon nañu vingt six ñoom ñëpp ay vingt six fii la ñu woon amoon na ay garçons aussi mais garçons yi la plupart filles yi da leen ëpp volonté ba fii rek ñoo fi des fi mu nekk nii. pour ma ñëw rek ci recommandation xale yi ndax xale yu am jom lañu xale yu neex a formé lañu ndax lii première chose mooy xale bu am détermination te ñoom xale yu am détermination lañ ndax xam na li ñu bëgg. ba mu ngi leen di jara saay ñu xëyee ñu jóge seeni kër bàyyi seeni waajur ngir bëgg ëllëg si biir lu ñu yore seen bopp ndax euh, jamonoy tey jii boo seetee li ne lu góor man rek jigéen ko ko dàq dañoo toll ci jooju jamono ndax bi li Kumba Gawlo naan bañ naa bañ naa duma doon femme objet ñaari loxoy takk tubéy mais mooy takk sër ñoom ci loolu lañ nekk ndax ñu ngi fii di xëy si di liggéey jafe-jafe yu ñu fi mënti amit ñu ngi koy jànkonte ndax gëm seen bopp ba xool fu nu bëgg a dem ëllëg ci foo xamante ni bii kenn du leen yàpp waaw su tombee nag tey 8 mars di euh, journée sargal jigéen yi waa 3SBT yi nga xam ne ñoo leen di dimbali ci formation ñoo seetsi leen ah daf leen di yokk jom ndax boo nekkee ci dëkk ñu reconnaître la lu ñu lim limaale la ca lu ñuy def defaale la ca lu ñuy wax waxaale la ci yow yaay wane li nga xamante ne bi mooy tax ëllëg si biir ñu lay dégg fu sori te ñoom ñu ngi ci loolu ah, ñuy di nag waa yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo leen jàppale ci formation bi ah de formé nañ leen trois fois te trois fois yooyu niilut ndax tey xale boo ci jox machine jox ko si dina la ko ñawal na mu ware dina la ko daggal na mu ware grace à ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo leen jàngal kub jàngal leen ñaw ñoom it ñu sonnuñu ndax ku ne xam na ni jàngal xale dafa metti bala ngaa dugal ci bopp xale dara dangay am xolu muñ yàlla nag may na leen xolu muñ boo xamante ne ah tenir nan xale yi soutenir nan leen ah grace nag ma dem Diop ndax lii lépp moom la ndax bu nga fekkoon tey yaatalul ay buntam ubbiwut ay buntam lii lépp mën naa ne mën naa bañ a nekk du ma ne nag du am mën naa amee ailleurs. mën naa amee feneen mais tey bu tëjoonu buntoom tey xale yi duñu ñëw fii bay fii jàng ba fi am yenn satisfaction yi ndax ku ne xam na ni handicap dafa metti ndax boo boolee handicapé rek souffrir la boo ci buggee boole nag doo am foo jànge métier boo doo am foo découvrir sa àdduna ba man koo doxale ni nga ko bëgg a doxale loolu da lay yokk gën a yokk souffrance kon ku la ciy jàppale di la dimbali ba nga am yenn formation yi rek yow mënatoo wax dara waaw li ma ci dolli comme recommandation mooy ñu jàppale leen ci suivi ndax xale bu for buñ ko formee ba pare te àndut ak financement àndut ak suivi day metti ci moom te ñoom ñi tey koo ci ber mu liggéeyal la kon tey bu nu amoon ay machines yoo xamante ne jàppale nañ leen ko tey kuñ ci jox sa diplôme tey boole la ak benn machine wala ñu boole la ak ñaari machine nga nekk ci sa ruq di liggéey jéem a jàppale sa yeneen moroomi indi handicapé yi nga xam ne ñoo ne ci biti loolu tamit cër bu rëy lay doon yaatal lay doon tamit may lancer appel les autorité ah euh, les euh, fonctions yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci dëkk bi ah di nga xamante ni ñooy ñi nga xamante ne bi ñooy suñu mbokk yi ñi liggéey ci nguur gi di tàllal ñépp loxo ñu jàppale xale yi ndax xale yi ñu am jom lañu nañ leen jàppale ci suivi jàppale leen si financement dimbali leen ci ay machine ku ci nekk tey bu ñu la joxee sa diplôme booy dem mën a génnaale sa machine foo nekk nekkal fa sa bopp bu ko defee ñeneen mën a ñëw ñoom it ñu former leen comme noonu ñu leen former ñoom tamit waaw bu ma amee daal lu ma ciy wax loolu lay doon di sant madame jóob nag bu baax ndax couche yëpp nag la yemale couche yëpp la yemale ñëpp lay dimbali muy handicapé moteur yi di sourds-muets di lépreux yi ah, di albinos yi ñoom ñëpp ku ci nekk jox na la sa gëdd ba nga war a am waaw jigéen la mais nag jigéen ju mën góor la te ku mu formé nag di nga am jomm ndax ci moom ngay roy ku yaroo ci keppaaram rek di nga am jomm waaw di nga am détermination di nga xam li nga bëgg di nga xam li nga bañ te doo ba bëgg kenn ku la yeb waaw ma koy nuyu nag à di nuyu ñëpp waaw di nuyu nag yuusu ak faat ba mi nga xam ne moo fi nekk ak ñoom moom ci xale yi ak beneen paa bi nga xamante ni moo leen di jàppale ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ndax jàppale nañ waa Panongo ndax genn golo gàtt na waaye lu ca dal nag borom yëg ko ndax tey su ma nekkoon présidente section féminine des personnes handicapées te ñoom ñii di xale aw ma ko ma ci jàppale it day doon rek man ni sama sama méttit waaw ndax su ma xamul fu may jaar xaw ma ku may tàllal sama loxo it day metti ci man metti ci ñoom waaye madame Diop boo na liggéeyam ak liggéey bi nga xam ne ñun ñi woo noonu la ñu waroon a liggéey jàppale ci xale yi yëpp. ñu di ko sant ci lool te di ko ñaanal fii mu nekk yàlla na ko suñ boroom gën a yàggal yokk ay graatam yàlla defal ko fi lu kaw a njortam waaw loolu daal laa amoon ci lu may wax.